mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen àndax ñun si rajo Rewmi FM dimanche bu jot ni leen koy amalee ci émission gox bi tey nag ñu am ci yéene rek dalal ki nga xam ni moom moo di Ndeye Seck présidente GIE femme unique bu Parcelles Assainies soxna si ñu ngi leen nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. waa salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa Parcelles yëpp. maa ngi leen di nuyu di nuyu waa rajo bi yëpp di sant di leen gërëm. Mhm. di remercier ci invitation bi ngeen ñu invité ñu ngi leen nuyu bu baax. Mhm. ci sama ndeyjoor itam di dalal ki nga xam ni moom moo di Awa Kane nekk présidente jeune fille yu génération originale ci Parcelles Assainies ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm bu baax a baax. waa salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa Rewmi FM yëpp. Mhm. di am contentement vraiment ci invitation bi wax dëgg yàlla ñu ngi kontaan di nuyu particulièrement waa parcelle 1 ba 26 yëpp. Mhm. Mm. waa émission bi nag balaa ñuy xuus ci waxtaan bi. Mhm. xam ngeen ni coronavirus bi dafa lëmbee jamono. Euh, ba tax na deuxième vague bi ñu ko doon ragal li ni mel mi ngi fi. ba tax na yéen ci ci balaa ñuy dugg ci femme unique ak yeneen waxtaan. yéen yan jéego ngeen def tey ci li nga xam ne nag moo jëm ci coronavirus bi ak ci wàllum sensibilisation ndax am yéen a ngi ci. waaw sant yàlla ñu ngi ci bu baax ndax depuis corona bi am ba léegi ñu ngi toppoon nit ñi rek ak maytu ci mbas mi rek ndax xam ne feebar bi moom lu am la. Mhm. te mi ngi ci dëkk bi. te dañoo war a topp mesure barrière yi bu baax pour euh, maytu ko. ni mu waree. mooy takk masque yi di laal gel di maytuloo xale yi di leen raxasloo maytu rassemblement yi comme ni ko état bi waxee. Mhm. ndax bu ko defee rek yàlla mën nañu dimbali feebar bi jóge fi. Mhm. ci wàllu yu ni mel ndax am yéen euh, am na si ay euh, sensibilisation yoo xam ne soobu ngeen ci ngir xiirtal nit ñi. ci euh, jumtuwaay yi nga xam ne nag moom la ñuy tere ndax deuxième vague bi moom mi ngi fi. Mm-hmm. balaa muy ëppi loxo itam ndax yéen euh, fas yéene ngeen ci def ay jéego gel ak masque jox ko askan wi. waaw xanaa dañ koy defar rek comme niñ ko defee woon génération originale bi mbas mi duggee parcelle waroon nañ fépp joxe ay masque joxe ay gel ay mada ay saabu pour nit ñi maytu feebar bi lu ko fi jëlee mu gën a gaaw. Mm-hmm. ndax buñ ko bàyyi ba mu law tamit suñu coono la ndax doole boobu amul fii Sénégal waxuma la parcelle. Mhm. gi ñu dëkkee kon foog nit ñi maytu ko rek te ñu ngi woon ci liggéey boobu te incha allah deuxième vague bi tamit yàlla na fi gaaw a jóge mhm. dinañ ci jugaat comme niñ ci woon def suñu may matukaay yu mat. Mhm. maytuloo nit ñi ba feebar bi yàlla jëlee ko fi daal ci dinañ ci ñëwaat yéen tey xam ku wax coronavirus bi rek nit ñi am nañu ci bari ñoo xam ne ñu ngi ciy faatu. Mm. dañuy tudd kaa dañuy tudd parcelle itam lu bari ndax tey yéen ñi nga xam ni ndaw ñi est-ce que message bi tey mi ngi jàll. waaw comme ni ma ko ni ko ma grande sœur waxee nday Seck ñu ngi ci ñu ngi ciy sensibiliser euh, jeunesse bi mhm. parce que tamit jeunesse moo yor réew. Mhm. léegi il faut jeunesse bi tam am ci taxawaay. Mhm. taxawaay bi mooy lan respecter mesures barrières yi di wax xale yi nañuy moytu rassemblement yi di raxasu. di moytu daal parce que deuxième vague bi ni ñu ko doon xalaatee ñëw na. Mhm. te boo oytul mooy gën a metti te yàlla nañu ci yàlla musal. Mhm. yàlla yemale ko fi. yàlla euh, dindi ñu lii parce que ñun sénégalais xajul ci lii. Mhm. xamuñu ko. tey ba tax na rassemblement yeeg lépp loo xam ne woy la yëngute wala musique wu ni leneen lépp loo xam ne nag dakkal nañ ko waaye dañuy gis ni ñoo xam ne nag dañuy faral di amal li ni mel waaye du ñuy takk masque du ñuy dandante loolu itam pëcc xoola de. waaw Pocc Xoolo xam nga li may wax rek ku nekk ak sa xel ku nekk ak sa xalaat mais de tout façon feebar bi mu ngi fii nañu ko moytu daal. Mhm. parce que tamit boo gisee décret bi ngeen démb euh, wax dëgg yàlla metti na mais tamit. Euh, sàmm suñu wér-gu-yaram moo waral loolu mhm. ba tax na ñi nga xam ne dañu dëgër bopp di ko def man dama leen ci indiwaat mhm. nañ ko moytu parce que bu ñu moytuwul rek lim ñuy jural ëllëg yàqute lay doon te li ma wax Sénégal àttanul loolu waaw nañu moytu bu baax a baax. en tant que ndaw est-ce que fas yéene nga wàcc ci terrain bi ngir ndaw yi li nga xam ne nag ñu ngi ko tëlee di ko def ngeen indil leen ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum sensibilisation walla bu daree sax jàppale leen ci wàllum école yeeg yeneen yi. ngir euh, takku mask bi ñu koy gën di respecté ndax euh, bu lawee rek amaana dina def njomme waaw ñu ngi ci comme ni ko nday Seck waxee euh, euh, génération originale tegoon na unité de eau de mhm. ñu koy def di ko joxe ci bërëb yëpp. bërëb yéenay liggéey eau de javel. ñoo koy def. Mhm. Mhm. nday Seck dina ci ñëw. Euh, teg tam de masque tailleur yi di ko ñëw ba marché yeeg yëpp. école marché yeeg yëpp ñu dem fa ak jàkk yeeg yëpp. di fa joxe masque ak eau de javel ak gel. parce que loolu yëpp tamit. taxawaay boobu def ci am solo. ndax nit ki boo koy dimbali da nga koy dimbali ci loo xamante ne dina ci gis boppam. ndax am na ñoo xam ne amuñu jógu masque amuñu jógu gel amuñu jógu eau de javel. te loolu génération originale mi ngi ciy def liggéey bu am solo. ànd ak nag euh, suñu xarit suñu frère. muy Mamadou Gueye original wax dëgg yàlla. léegi yéen da ngeen teg mbootaay. ngir jàppale ko seen bopp di defar ay gel. Mm-hmm. Euh, ngir euh, di ko jox askan wi wala yéen a koy defar di ko jaay. déedéet ñu ngi koy def rek comme ni ko awa waxee ñu ci sant bu baax suñu président muy Mamadou Gueye l'original ndax bi mu amee dañu am formation boo xam dañ koy def mu defaloon ko waa parcelle xaajalewu ci benn parti ci fuñ nekk pour di ko dimbalee nit ñi muy benn euh, kii bu ñuy def boo xam ne maire woo xam ne loolu lay liggéey. Mhm. formatrice boo xam ne internationale la. Mhm. moom la jëloon moo ñu doon defal javel yi mu jël ay tailleur ñu ñooy ñaw masque yi mu koy def chaque mhm. unité. daanaka chaque semaine ñu duggoon ci ñaari unité wala ñett dimbali leen ci eau de javel dimbali leen ci mada dimbali leen ci saabu ak ay masque pour maytu feebar bi ak mbas mi mi ngi ko doon def nag waaye loolu nag musu ko jaay ndax ci dooleem la ko def ak xalaatam ak xelam. Mhm. pour jàppale ko waa parcelle. léegi expérience boobu ñu ñu leen defal ndax yéen euh, fas yéene ngeen ko def. ci biir parcel wala door ngeen ko. ñi ngi koy door bu baax ndax man mii di wax ak yow président GIE la bu ma xëyee awakan mi ngi nii mooy sama seet. seen GIE ñaata nit la. ëpp nañ cent quatre-vingts femmes lañ mhm. waa g femme unique cent quatre-vingts femmes lañ mhm. mbas mi moo tax waaye bu ñu defoon émission mun nañ laa ñëw nga ñëw fekk si ñu mhm. fa ñu nekk chaque dimanche dañuy daje waaye bi mbas mi ñëwee ba léegi mesure barrière yi daf ñu tere dajaloo bi ñun tamit dañ ko arrêté suñu natt yi ñu doon def yëpp dañuy yónnee natt tiire ku gàñe ñu yónnee la sa xaalis léegi li nga xam ni moom moo jëm ci masque yi est-ce que yéen itam ndaw ñii buñ ko defaree jox leen ko ngeen koy jaay wala ngeen koy joxe ndax am noonu lay demee. non non duñ ko jaay. suñu jaay koy joxe mm-hmm. Mm-hmm. dañ koy maye. tey ku ci nekk sa saak day am masque fooy dem. Mm-hmm. koo romb ne ko am ku takkul masque. ci garage yeeg yeneen yëpp parce que loolu la ñu comme day seeg ni mu ko wax suñu président euh, jàngale muy Mamadou Gueye. social la ñuy def. ñun suñu lépp maye la. social rek ci loolu la ñuy dund ci loolu la ñuy dox à chaque instant. ok 88 la 628 84 84 wala 88. 628 85 85 wala 88 628 86 86 femme unique yi nan la ñëwee ak naka ngeen ko taxawalee. waaw macha allah femme unique moom ay jigéen la rek yu bokk benn gox bu ñu dëkk. Mhm. takk boole seen liggéey di liggéey rek pour soqali seen gox. Mhm. bi ñu demee nag ci soqali seen gox ci jàppalante. Mhm. ndax comme niñ koy waxee rek femme unique à part bi dafa am caisse sociale boo xam dañ koy def pour jàppalante ndax néew di doole bëri na suñu biir ak te yàlla kenn mënul yàlla rek moo mën léeg-léeg xew-xew am am koo xam ni lépp mënu ko femme unique dina jël ci keesam jàppale la. Mhm. pour ñu defar la si yëpp ci sutura te kenn du ci bokk. concept boobu lañ jàppoon nag ba continuer ci mhm. organiser wu di ànd chaque jour di liggéey mhm. pour lu soqali suñu gox muy intasat gi ñu dëkk mhm. te buñ mënee war wër parcelle tamit moo ñuy gënal te ñu ngi ciy am jàppale boo xam ni mu ngi jóge ci Mamadou Gueye bu baax pour nag ñu wër ko femme unique moom ak groupement yi mu wër parcelle ñëpp nekk di liggéey ci jàmm suqaliku daal. Mhm. léegi su ma la déggeen maanaam bu ngeen da ngeen di defar dara. Mhm. tasaare ko. Mhm. maanaam GIE bi du koppar rek ngeen di dajale. lan mooy activité bu gën a fës ci yéen. activité bi gën a fës ci ñun mooy liggéey rek. ti lan ci lan ngeen ko teg liggéey bi. waaw comme ni ni ma leen ko ni ma la ko waxee sànq formation boobu ñu Mamadou Gueye di defal. dañ fay defar lépp. lépp lañ fay defar koko mhm. jinjeer dañuy defar ay gerte suukar dañuy defar sànqal dañuy defar ngurbaan dañuy def jus concentré dañuy defar lépp loo xalaat lu jëm ci waañ rek ak mhm. kër loo xam ne jigéen mën na ko utiliser même dugg mii ni mu amee dañuy defar euh, nga xam dañ koy mën a denc bu manqué ñu koy utiliser waat mhm. te loolu boo ko soxlaa boo woowee awakan facilement am sa groupement da lay jël yëpp dugal la sa lis ñu ñëw jàngal la ko naa quatre jours nga mun te bu ñu demee ba su bu doon mbas mi ba léegi génne nañ suñuy diplôme joxe. Mhm. am say carte macha allah bu foire amee. Mhm. di nga am euh, njort pour dem foire joxe sa wone sa carte liggéey ci. mu doon njariñ sa kër koba jinjeer yi boo ko liggéey sa kër teg ko sa buntu kër mbuus cent franc sax boo ko defaree da ngay gagné mhm. maanaam léegi liggéey bi bëri na ci gox yeeg goxaan yi léegi ndax euh, la ca war ñu ngi leen koy jàppale ngir conceptel leen parce que li nga xam ne moom moo jëm ci domaine bi mhm. ndax ñu ngi leen ciy jàppale maanaam financement yeeg yu nu nan lay demee ñun daal jàppale bi ñu añ mooy Mamadou Gueye benn jàppale boobu la am li si def suñu doole bopp la mhm. jigéen ñi DER mi ngi fi di financé financé wu leen. waa DER moom noonu financé wuñ. Mhm. te xam naa na dafa sàkku ngeen ko sàkku ngeen ko. waa am nañu ay papier te tamit dinañ essayer dugal. Mhm. comme loo xam ne la réew mi yëpp a ko bokk. ñun tamit am nañ suñu wàll ndax liggéey nañ ci réew mi lu war a tax ñu am ci lool mhm. bu ñu ko waree tamit dina dugal suñuy papier te ndax ñu ngi ci liggéey boobu di ko def di organiser ndax ndax Mamadou Gueye yooyu yëpp ñi nga wax nii da koy bàyyi xel fi mu ne GIE kayit yëpp mi ngi koy liggéey pour ñu am kayit mun a xam benn occasion bu jógee ci état nga mën a dugal sa kayit pour gagner si. <laughs> léegi ci ci wàllu woowu léegi euh, ndaw ñi itam am na benn euh, place bu am solo bu nga xam ne nag war nañ ko occuper ci gox yeeg goxaan yi ndax liggéey baa ngi fa ndaxam léegi buñ ko diversifier ku nekk mën see jote ndaxam loolu gënul itam. waa ñu ngi koy def parce que du mag ñi kese. ndaw ñi ñu ngi koy def ñun macha allah li may wax rek euh, de Gueye le président de génération originale macha allah moom xeebul kenn. am na ay jeunes yoo xamante ne def nañ formation bi ba pare ba tey ñu ngi ciy jariñu te jotaguñu seen attestation. parce que mbas mee tax mais le 19 bi. décembre bi lañu waroon def euh, cérémonie bi remise de diplôme. parce que diplôme boobu mooy war na yow jàng affaire bi. ëllëgën ci biir foo dem di nga mën a liggéey. parce que tamit munoo jàng jàng gumba te jox la attestation loolu munul nekk. te moom loolu yëpp moo koy def moo lay jàngal métier may la diplôme ci ay propre moyen laajul diplôme bi kay dañ koy dañ koy liggéey kenn du ko maye non da nga koy liggéey boo gisee ma ne parce que da dem mhm. di fay mhm. xam nga liggéey booy def boo demee da ngay fay mhm. jàng ba mokkal ñu jox la diplôme mais moom macha allah moo lay fayal moo lay fayal jàng boobu ba ñu jox la sa diplôme attestation ba ëllëg foo bëgg dem di nga dem liggéey ndax diplôme boobu ndaw yi ñu ngi ciy gis seen bopp bu oh, baax moo liggéey bi ngeen di tudd du ma ko tudd est-ce que la ca war ña nga xam ni tey mairie ba wala ñeneen ñi am ngeen seen jàppandal parce que bu ngeen jàkkee itam seen maire a ngi fa ndax mun nañ leen orienter wan leen yoon bi ndax am yéen dem ngeen wane seen projet yi nga xam ni am ngeen ko ci mairie bi ngir ñu jàppale leen. waaw mon frère parcelle ñun parcelle lañ dëkk ay doomu parcelle lañ. <laughs> gis nga parcelle umpante dara dara ump fa kenn dara. Hmm. ba tax na. li ñuy wax rek mooy ñun kenn la ñu gis wax dëgg yàlla muy Mamadou Guèye Guèye original muy jàppale waa parcelle ndax social lay def ci côté yu nekk domaine bu nekk mm-hmm. te moom lañ gis wax dëgg yàlla lépp lu ñu fecc lu ñu tëgg feccale nañu ko mm-hmm. lépp lu ñu sóob dëbbale nañu ko xam nga neex na itam ngay wax diw moom a jàppale mais est-ce que dem ngeen seeti ko ngeen ne ko lii mooy suñu projet lii lañ bëgg nga jàppale ñu ci parcelle comme financement dinañ ci ñëwaat ci financement yi ngay wax tey ngir mu jàppale leen mu suqali leen itam ci gox bi ngeen nekk ndax di ci liggéey baax na itam boo gessoo dem ci mairie bi ñu jàppale leen ndax yéen bind ngeen dem ngeen. non franchement binduñu. Mhm. xam nga lu tax binduñu dañu juddoo parcelle màggee parcelle. da ngeen jàpp boo ngeen bindee du ngeen. merci du ñu am. Mhm. parce que tamit nañ waxante dëgg bu ñu bindee amaana la yàlla xam doy na. Mhm. moo tax tamit bind boobu dañ koy tayal vraiment. bind. muy Mamadou duggee te buñ ko bindee lu ñu bëgg dinañu ko def. mais est-ce que itam jotul ngeen changer doxalin itam bu ngeen bëggee doxal dem ñu jàppale leen bindu na itam parce que Moussa Sy moom mooy maire Parcelles Assainies moo fa teewal ñëpp. kon bu ngeen yëngu ci dara itam baax na ngeen dem jottali ko seen bëgg-bëgg mu jàppale leen mais fii ak deful lool est-ce que dina mën a ràññee lool. waaw loolu moom dëgg la. Mhm. mais Moussa xam na li xew parcelle xam na li ñuy activité yi ñuy mënee parcelle moom dara umb ko ci xam na lépp. Mhm. te tamit li may wax rek naan benn lam du yëngu. ñun dofuñu ay magum jëmm lañ lu ñu dugg tam dañ koy xam buñ ci am réussite <laughs> dañ koy xam bu buñ ci dul am réussite tam dañ koy xam <laughs> moo tax je préfère daal ñun ñu ki ñuy bind kenn rek la ñuy bind te dañ ko tàmm <laughs> te dañ daf ñu ko tàmmal aussi tamit muy géey original ok financement yi ngay wax bëri na mhm. euh, ngeen ne da di cotiser xam nga tamit tey du yam ci maanaam ñëw natt rek wala ngeen gisee xaalis bi dugg mhm. parce que itam am na yeneen projet yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk taxawal ay marché mi ngi fi mais yooyu itam am na ay bànqaas yi nga xam ni gouvernement bi taxawal na ko. Mhm. fii ak tey est-ce que bu ngeen demul bindu est-ce que di ngeen xam loolu. si dañuy de lu gouvernement bi indi moom ñun dañ ciy dem bu baax ndax dañu nekk ci biir réew mi bokk ci ñiy doxal réew mi doon ay jigéen. Mhm. war ko soxla comme ni ko ñëpp di soxlaa te am nañ suñuy papier femme unique am na ay papier yu leer. Mhm. yoo xam fu mu ko dugal bu laajtee financement ñu xool këyitam xool li mu liggéey war nañ ko ko mën a jox. ñun biñ ñu mujjee am financement rek yàggul. Mhm. amoon nañ financement ci banque du dix millions. Mhm. ba fay ko ba pare. lan mhm. ngeen jëfandikoo ci dix million yooyu. waa dix millions yi dañ koy séddale femmes yi ñuy liggéeyal ndax dix million cinquante femmes lañ ko séddale woon ku nekk ñu jox la deux cent mille. nga fay ba mu jeex waaye essence yi ak fi mbas mi toll. liggéey yu bëri dafa taxaw mhm. te xaalis dafa doy waar boo ko joxee jigéen ñi mun na tax seen loxo te duñ ko delloo moo tax ñu doon xaaraale mhm. bu yi yëpp passé tamit suñu papier dañ koy dugal fu état yi di soxla pour ñu mhm. mun ci am dara waa ñu may profité rek di laalaale tuuti ci li nga <laughs> li nga xam ne moom moo jëm euh, ci seen euh, parce que itam euh, femme unique luñ koy dégg bari na yan jéego tey ngeen def. Mhm. baax na itam nga jukki ko. wakki mhm. euh, waa parcelle itam xam ni yéen def ngeen ay jéego ci gox ak goxaan. waaw femme unique moom parcelle ñi dëkk surtout surtout côté Intesat ñëpp xam nañ femme yéen seen activité ah Intesat ko yem. waaw dañ koy génne ndax ñun fu lu waay xewle parcelle boo ñu woowee femme unique dañuy déplacé wu fekke la te luñ mun tamit ci jàppale la sa liggéey dañ koy wone li ñu fi ñu jaar tamit ba egg fii bu ñu toogee ci groupement ak ci jigéen ñi dañ leen koy wax yaatal leen ko ne leen nan leen doxalee nii nan leen doxalee nii ndax mu ñu sañoon femme unique réseau lay doon ci parcelle. Mhm. wala mu yéen ngi ci jéego yooyu. ñu ngi ci jéego yi bu baax. Mm-hmm. ñu ngi ci bu baax di ci liggéey chaque jour. Mm-hmm. bu ñu sañoon loolu lay doon réseau bu mag. Mm-hmm. nekk parcelle nekk liggéey bu am doole jigéenu parcelle yëpp gis seen bopp. ndax jigéen mooy defar dëkk mooy defar àddina. waaw mooy may boros rek di jaar comme ni nga waxee sama sœur bi ni nga ko laajee ci mairie xaar ma laaj la ko Moussa mooy seen njiit. waaw ndax yéen GIE boobu noonu. bind ngeen sàkk ci moom mu dimbali leen ci ay financement def ngeen ko wala defu leen ko. waaw comme ni la ko awa waxee defuñu ko. ndax boo ci defee amul résultat du ko am. ndax ñun xam nañ bànqaas bi ñu nekkee génération originale lañ nekkal Mamadou mu duggee lañuy àndal te loo ko boo ko defee parcelle par par loolu boo fa am boo ànd ak moom loo liggéey mu laale ko boo àndeek moom nag. bu naan maanaam lépp politique la. waaw te loolu sax dafa dafa war a jeex moo tax sax muy profité waale di ko wax maa ngi gis sama sœur tuuti mbay mi ngi dugal ay image démb si bi muy dem euh, bi Modou euh, bi euh, Moussa Sy di dem ci post santé unité ñu war koo defaraat ñi ngi koy ñaan di ko ñaan monsieur le maire. Mhm. balaa muy toj poste santé unité neuf yàlla nañ nga ut fu ñu dugal poste santé boobu. Mhm. ndax jariñ la ci unité sept unité neuf ba Cambérène. Mhm. ñëpp fa la ñuy fajoo loolu nu mu demee bañ koy nar toj. waaw dafa yàqu. Ah, poste santé unité dafa yàqu dafa yàqu. Hmm. ñu war ko defaraat waaye balaa ñu koo defaraat dañ koy ñaan di ko tàllal loxo mu ut fu mu dugal waa poste santé ba pare hmm. ba jigéen ñi fa doon fajoo mun ko bañ a ñàkk. Hmm. léegi nag daf ko daf ko koy daane daf koy. waaw wax te loolu sax ñun ñëpp ànd nañ ci ndax dafa yàqu état bi nu mu mel. ñun ñëpp ànd nañ ci mu defaraat ko. Eh. waaye dañuy ñaan rek balaa mu koo toj. mun na leen dugal foo xam ne jigéen ñi tamit dinañ mën a continuer seen ñàkki doom. si buru yi ñu fay faj yëpp ñu bàyyi leen fa. est-ce que sàkku ngeen gisee ak moom waxtaan ak moom ci li xam nga itam. nit boo waxtaanul ak moom du mun a xam waxtaan ngeen ak Moussa Sy ngeen ne ko balaa muy daaneel mu jéem a ñi fu ñu nekk la temps ñiy defar foofu dem ngeen waxtaan ak moom. waaw xam nga parce que GIE ngeen. Mhm. itam da ngeen di yëngu da ngeen di jàppale dangeen di dimbale. Eh, faaw ngeen bind itam ngeen dem. waaye xam nga lu nekk am na yoon comme conseil mhm. municipal dafa am te defe naa bi mu koy def woo leen ba waxtaan ak ñoom. kon def naa liggéey bi ñooñ tamit loolu moo fay seen ci euh, seen gox mhm. ndax dañ leen a fal pour ñu sàmmal ñu suñu gox mhm. kon buñ leen woowee ci conseil municipal bi ñoom it xam naa teg nañ ko ci charte yi ñoo xam ne mhm. na ko dindi léegi ñun nag dañ ko gis ci image yi ak di ko dégg moo tax ñu profité rek di ko ko ñaan ndax ñun ñi ñëpp intersat lañ dëkk te ñëpp fa la ñuy fajoo waaw alors parcelle yaa ngi doon wax sànq femme unique est-ce que tey mën nañ xaarandi Euh, parcelle ak ni mu bindoo parcelle ak ni mu yaatoo. 1 mm-hmm. ba 26. Mm-hmm. ngeen yemale GIE bi yaa ngi doon junj sànq réseau. Mm-hmm. est-ce que tey yéen bànqaas bu nekk wala unité bu nekk tey am ngeen fa mbootaay bi nga xam ne moo leen fa toogal di jàppale ñooñu ci gox yeeg goxaan yi. parce que parce dafa rëy itam. parcelle dafa rëy ndax boo koy commencé inte 7 la ba 26. waaye macha allah ñun ñi ngi liggéey comme ni ñu ko waxee formation boobu daanaka unité yëpp am nañ fa. ñoo xam ne taxaw nañ. pour ànd ak ñun liggéey boobu ba ci ñi ngi ci liggéey bi di leen defaral ay papiye mhm. te ñu ci bëri ñi ngi seeni papier pare na ñi ci des ñi ngi continuer di dem ci ñoom mhm. kon yaakaar na bu ñu waxee réseau bi war na mën a yomb mhm. ndax ñun ñi ngi ci liggéey bi tooguñu ndax mën nañ ni ngeen euh, amal ab mutuelle ci biir Parcelles Assainies waa bu baax lool loolu dafa war a am sax ñun loolu dañ ciy ñaan ñi nga xam ne añ am nañ doole ak kàttan parcelle jàppale si jigéenu parcelle ndax jigéen ñi buñ leen dimbalee rek ñu liggéey ñàkk financement ak moyens yu ñu demee moo tax liggéey di tënku. Mhm. ndax jigéen ju nekk boo ko joxee sax vingt cinq mille mu jëndi taabal tef ci mbeddam. Mhm. am lum ci liggéey. waaye nag léeg-léeg jafe-jafe àdduna jàpp leen di nga bëgg a liggéey te doo am moyen. Mhm. te bu ñu amee ku ñu si jàppale dañ ciy toog waxtaan ak moom teg ko fu leer ndax loolu sax dañ koy génn ci politique. def ko rek ñun loo xam ne social lay doon jàppale si jigéen ñi ndax mu delloo ko si këram. Mm. Euh, parce que damay gis parcelle ñu ci bari. Euh, di daan doole si seen gox yeeg goxaane fu ñu mm. dëkk génnewuñu fa ndaw yi itam kenn damul ñu des ndax ñu ngi leen di tàggat. waa <clears throat> loolu tamit c'est tàggat boobu tamit day des. Mm-hmm. parce que nit il faut nga jàngal ko liggéey. Mm-hmm. parce que liggéey boo ko jàngul rek doo xam njariñ bi. Mm-hmm. tàggat boobu nag euh, ñun waa génération originale ñu ngi koy def ñu ngi tàggat suñuy ndaw pour lu ñu yor ñu xam ne lii lii lañ ci war a def ak lee loolu tam c'est très important wax dëgg yàlla. Mhm. côté boobu moom génération originale ñu ngi ci liggéey. yéen ngi wàcc ci terrain bi di xam euh, laata may ñëw sax si jafe-jafe yi mais di wàcc si terrain bi di xool. parcelle bu baax a baax yan jumtuwaay lañ fa war a def tey mhm. ba ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi ñi gën a mën a xuus itam am euh, xëy bokk na ci itam parcelle laaj nga ma question bu ma neex mhm. ndax ñun parcelle fa lañ juddoo fa lañ màggee ba toll nii mais mm. parcelle musul changé kër yi mais parcelle musul changé. musul ah, changé loolu doy na waar. non doy na ma ne parcelle musul changé parce ñun bi ñu juddoo ba tey ni fekkee parcelle parcelle noonu la mel. Mm-hmm. moo tax ma ne parcelle kër yi mais parcelle changé wul te il est temps nag parcelle changé boo ne parcelle laa dëkk rek dañ lay xoolaat. xoolal yeneen gox yi lu tax nga wax loolu. non parce que booy xool parcelle amul waxtaan. Mhm. amu fa parcelle pour nga sol dàll sax dox problème ngay am. déet pavé yi léegi am na fa de. fan ba wax ma ba fan lañ pavé. unité vingt deux am na pavé. Ah, ah, ak yeneen unité ban unité non mhm. non defal ndànk mhm. unité 22 moom am ak unité 18 te ñooñu sax pavé bi da leen a rey parce que nawet bi dañu génn seen kër yi parce que pavé bi niñ ko pavé baaxul dañu sonn ñun dem nañ fa ci nawet bi seeti leen kon nga xam ne ñun ñun parcelle ñu ngi souffrir wax dëgg la ci daal ci naka tey boo solee daal non pour nga dem ba tali ba jëli oto dangay ngay mer mm-hmm. te ñun parcelle waroon nañu de dépassé fi ñu nekk mm-hmm. moo tax nag comme ñun il est temps ñun ñu ñun ndaw ñi ñu mm-hmm. xoolaat ak jigéen ñi fi ñu teg suñu tànk moo tax ñu jëli ma duggee original ne ko kaay yaa ñu mën a dimbale ci Parcelles Assainies loolu dinañ ci ñëw <laughs> léegi ci yenn jaar-jaar ngeen ngeen mun a ko parce que itam euh, boo ñëwee parcelle ñu si bari dañuy jaay mbir eh, jooy mbirum ndox ñàkkum mhm. ndox mi eh, yéen a ngeen si eh, balaa ñuy root trois heures du matin deux heures du matin ngay toog mhm. pour xaar robinet bi ubbi nga mën a root pour xëy togg wala xëy sangu surtout ak élèves yi di war a jàngi war a xëy nga war a dem marché boobuy metti nga yendoo jeex feebar te loolu nag ndox mi ndox mi problème mu ndox rek laa la wax de ñëpp jigéen boo gis mi ngi jeex te problème ndox moo ko jeexal parce que doo mën nelaw nelaw yu doy te loolu tamit wax dëgg yàlla war nañu ci dimbale ñun jigéen ñi mhm. ñoo gën a sonn ci problème mu ndox mi mhm. kon mais fan yi ñuy mujj rek indi woon nañ ci saafara am na benn euh, usine gu ndaw bu nga xam ne taxawoon nañ ko booru cité mixta mhm. euh, ne woon ndox bi dina commencé ñëwaat euh, ci anam gu jaar yoon amul changement ah gisaguñ ko ñu ngi xaar xëy na dina am changement mais gisaguñ ko <laughs> mm. léegi su la déggee femme unique. léegi ngeen dem euh, tey ñu ngi wax parcelle Assainies lan ngeen yokk ci parcelles yéen. waaw parcelle moom li ñu fay yokk mooy juddoo fa comme ni ko aw waxee màgge fa léegi nag taxaw taxawaay boo xam ne dañuy xool nag xam ne lii suñu gox la. <laughs> ñoo ko war a defaral suñu bopp soobu nañ ci incha allah. Mhm. te ñi ngi ñaan yàlla jàppale ñu ci mu gën a jëm kanam. Mhm. soobu ci mooy nekk ay jigéen takku. Mhm. bàyyi caaxaan yi bàyyi yëpp te nangoo liggéey. Mhm. pour suqali sa gox. ndax ku nekk boo liggéeyul rek. Mhm. ñëpp toog di seetaan du baax. Mhm. ndax ku nekk buy xaar état bi buy xaar goxu parcelle tamit day mujj metti si ñun. moo tax femme unique taxaw jigéen ñoo xam ne heure bu ñu xëyee ñëpp. mocc bi yëpp ñu ngi ci marché yi. ñu ci place yi di liggéey. ñu ngi ci école yi di jaay pour am lu ñu delloo seen biir njaboot. te buñ delloo seen njaboot tamit organiser ko ba du ñu mën ci def loo xam ne dina mucc ay lu leen jariñ jariñ seen njaboot. Mhm. loolu daal tax ñu taxawaay. GIE une femme unique. Mhm. parce que dañ am na ñoo xam ne GIE ci kër la commencé. Mhm. tàbbi ci gox. génn ci gox. dem ci mu gën a rëy. Euh, ndax mën nañ leen xaar GIE femme unique mu nekk national boo xam ne quatorze régions yu Sénégal yëpp dinañ ci am. waaw mën a suqaliku mën a def yeneen parce que yéen ndax yéen a ngi xalaat loolu. bu baax ndax looy yëngu rek da ngay bëgg mu jëm kanam. Hmm. ndax doo xëy di ñaan yàlla yàlla naa dellu ginnaaw lu ñuy yëngu GIE Femme Unique bu ñu sañoon partout dans le monde ñu koy dégg. Hmm. ndax loolu mooy suñu mbëbét. mooy suñu bëgg-bëgg pour defar loo xam ni dinañ xam ni lii jigéen daal. Hmm. lépp lum duggit mun nañu. nekk ci beneen côté mhm. waaye mun nañ ci nekk ci côté boo xam ne positif nag ba ku leen ci fekk mhm. dangay leen may loxo mhm. yaa ngi may wax ni da nga yéen a ngi soobu ci liggéeyu parcelle ci seen euh, ci ci ci Parcelles Assainies euh, gox bi kii su ma ko déggee mu ne dafa tëju parcelle ba mu kiiwee ba léegi noonu la mel euh, yéen lu ngeen ci fas yéene yokk wala dafa ay jafe-jafe mi ngi fa ba tey parcelle moom ci jafe-jafe lañ dëkk. Ah, ci lan ci côté ban ban fan ci côté yëpp waaw jukkil ma ci benn. ndax ñun déjà rek sentiruñu suñu maire. Ah, maire parcelle sentiruñ ko. Hmm. ndax ñun duñ ko gis. duñ ko dégg saa si parcelle la dëkk unité 11. ah dégg naa ko de mosuma xaaroon buntu këram mu taxaw. ah loolu la ñuy wax de Pa Moussa Sy parcelle la dëkk mooy maire mooy bokk meelu parcelle. waaw yow nga ne eh, eh, sentiruñ ko sentiruñ ko ndax gisuñu ko gisuñu muy dem fenn surtout léegi. bu njëkk sax at yile passé daan nañ gis sax parce euh, que kii bii nii euh, yàqu-yàqu yi ci nawet bi nii mm-hmm. bu njëkk sax daan nañ daan ko gis mu dugg ci yooyu waaye ren ña fa nekk te nekkuñu dara ñoo dem fekke nit ñi ba diggante inte sept ak onze bi mu feesee ndox ak yëpp jeunes yi ñoo génn ànd ak ña fa nekk ay responsable ñu ci lekk xam nga loolu tamit metti na ci gox maanaam da ngeen am maire te du ngeen ko gis ah man de gëj naa ko gis Moussa Cissé ay at gëj naa ko. mais yow mi nga xam ne doo ko dul bind lettre di ko di dem est que di nga ko jot ba géeg di nga ko gis waaw mooy li ma la tontu sànq rek. Hmm. lettre boo bind ñu bind si femme unique. Hmm. wala intercept wala. madame Ndeye Seck loolu duñ mun naa bañ a yegg si moom sax. Hmm. ndax bokk ak moom kan xam nga loolu moo tardé Sénégal. politique politique moo tax ñun ñu jug def politique notre autrement. pour changer système ndax loo xam njariñu askan yi nga war a taxawal. Mhm. ndax foofu ñun ñoo leen fafal ñun ñii suñuy carte sànni lañ ko Moussa Ciss pour mu nekk maire ndax doomu parcelle la. Mhm. te dañoo am ci yaakaar moom ci moom. loolu lañ amoon ci moom yaakaar ndax la bu dëkk parcelle yaroo fa. Mhm. juddoo fa màgge fa ñu am yaakaar jël suñuy carte jox ko pour mu suqali parcelle. waaye yaakaar boobu li ci tas bëri na. yaakaar euh, dafa tas bu baax. Hmm. ndax yu bëri parcelle manquement yi fa am bëri na kerte kenn du ko wax. Hmm. ah léegi yoolu yool moo tax ñu dalal la tey nga. wax waaw moo tax nag hmm. dañ ci taxaw di ci remercier waale benn euh, kii bu mel ni. mooy. ñoo xam dañuy taxaw daal pour défense euh, intérêt parcelle muy collective bu mag ñuy ñu ciy remercier waale grand Fall ñi nga muy suñu président yàqu-yàqu parcelles yi fa nekk manquement yi dañ koy xool di ko lijjante di ko wax. Mhm. du neex a dégg nag ndax moom dëkk boo ci nekkee ci gox boo waxee ni lii baaxut te àndoog ñoom da leen di naqare waaye loolu suñu njëriñ la. Mhm. ndax dañ ko war a déglu sax ndax loolu moo doxal parcelle. Mhm. comme ni ko awa waxee bu nawet jotee boo demee fii boo ñëwee jëlee tax fii kasoor ne ko parcelle du la sa ndax xalaatu fa dugg. fa duggee ndox la xamul fu muy jaar. mais gox itam du maire moom mooy dox am na loo xam ne mën na ko am na loo xam ne itam mënu ko comme mbirum mbënd bi ngeen di wax euh, maire itam kopparam jotewul ba mu mën a def loolu euh, naka ngeen jàppee loolu yi itam. waa euh, comme comme lii Ndeye Seck wax rek lu ñu wax mu ne du compétence am te maire warul waxee noonu parce que lépp compétence am ah, mais bu fekkee yorul poosam attanu ko mais mais mais kii yaa ngi fii partenaire yaa ngi fi. partenaire yaa ngi fi maire bu ne da ngaa war a dem uti ay partenaire defar sa gox parce que ñun tey parcelle la ñuy ndamoo guddi guddi parcelle kon ñun parcelle tey dañu war a parcelle dafa war a nekk comme Paris surtout moom parcelle la dëkk il est temps nag ñu yuuxu ndimbal mu ngi leen di dégg ngeen foon ah mi ngi ñuy dégg kay parce que mooy mairie parcelle moom moo fa nekk moom mooy kilifa parcelle te nangul nañ ko ko nag waaye nag Euh, il est nag tamit mu delloo xale yi nag ñu jéem a xool tamit. Mhm. parce que ci ci ndaw ñi itam eh, dañ naan ñu bari dañuy naan amuñu fu nu euh, euh, maanaam noppal ko maanaam ay loisir yoo xam ne jumtuwaay yoo xam ne ndaw ñi mën nañ fa nekk dafa mel ni parcelle dafa manqué jumtuwaay yooyu. wax naa ko sànq amu fa tey boo demee géejawaay tey am na fa dangay romb xale yi toog ci jardin di connecté. nu mu leen hmm. neexee ba yenn heure yi nga dem ñibbi mais ñun parcel amul dara pour nga génn sax am gan il faut nga jël taxi génn dem fenn réer yi ñëwaat ñibbi si mais parcelle dafa war a am loolu ñun ñu sentir si suñu bopp te ñun suñu doom yi moo tax sax ñuy wax ndax ñun kii macha allah boobu ba tey soxlaatuñ ko mais suñu doom yi ñëw ak suñu sœur yi ñëw. Hmm. mais il est temps moo tax ñu taxaw yuuxu nag yuuxu nag dafa jëpp. Hmm. Euh, ci li jëm ci wàll woow itam ndaw ñi am na pàcc bu am solo bu ñuy am tàggat yaram yeeg yeneen seen stade bi bu ngeen ci xalaat. xoola ñun yàlla daf ñu dimbali ne dañu bëgg sport parce que dañu màgg suñu grand frère Zem ma koy nuyu de passage nekk ay entraîneur bu mag ci ay équipe buy dem daf ñu yóbbaale ñu bëgg sport nag kon ñun tey dañuy dañuy wàcc sax liggéey dem seetaani sport léegi nag ñun xoola suñu stade bi ñaata at stade bi mënuñu fexe ba joué fa. Ah, tey léegi léegi na de. waaw macha allah yanj na moom xam naa bu paree moom suñu xol dina sedd. Mm. waaye nag lépp dañ koy delloo tamit Macky Sall Amadou Ba Matar Ba. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. njukkal boobu dañ leen koy delloo. waaw ah, mais itam moo ko tàmbali. waaw waaw dañ ko koy nangul moo ko tàmbali. Mm. waaye nag bañ ko ko tàmbalee mu tële. dañ euh, euh, genre Mamadou Guèye geeg euh, ñoom Khadim Gadiaga ñoom bas Ndiaye ma leen di nuyu te passage dañuy mm. yuuxu te bañ yuuxoo Macky Sall daf leen dégg. tey mu wax ak Amadou Ba tey ba ministre Matar Ba ñëw fi. Hmm. kon alhamdulilah rabbil alamin ci hmm. loolu. Hmm. kon nekkatul luy yàgg daal. no ah mën na am du yàgg parce que bëgg nañ bu mbas mi jeexee nawetaan yi di ñëw ñu football ko. pourquoi pa léegi Parcelles Assainies. léegi yéen euh, lu war a doon seen taxawaay kon. ci jafe-jafe yi da ngeen war a ñëw euh, jafe yi nga jafe-jafe yi nga xam ne nag moom moo fa nekk ngeen indi si seen kéntulaay kàttan itam parce que ci loolu lañ leen a xaaree ci lu lu ëpp. waaw loolu moom dañ ciy liggéey moom liñ la wax rek loolu foog nga liggéey ci ànd ci jigéen ñi ndax réew boo ci nekkee ak parcelle defe naa li fa baax yëpp jigéen ñi ñoo ci ëpp doole luñ ciy yëngu. Mhm. mooy li aw wax rek foog ñuy informer nit ñi te waxanteeg ñoom dëgg ñu xool organisation yi niñ koy changé ndax comme lu mel ni euh, centre social boobu. Mhm. ku fa amoon jëkkër yàlla may la jëkkër booy def sa mariage foog nga daan defee. amoon na terrain basket. amoon na centre amoon na salon amoon na même poste de santé. Mm-hmm. biñ ko tojee ba tey dañ ko teg noonu amul dara muy yàq-yàq bu nekk parcelle boo xam ni waa parcelle waroon nañ ciy jariñu fi mu ne nii boo amee mariage soo génnul wala nga baas sa buntu kër fay borom tànt yi fay xaalis bu dul jeex pour mun a mariage te mariage ba sax daanaka carax lay doon ndax ku fa soltaloo doo xam looy def loolu moo am parcelle amuñu benn espace léegi nag loolu jigéen ñi lañ ci yee ak xale yi. Mm-hmm. ñu war a yeewu parcelle ay xale nga fa yu juddu mm-hmm. macha allah jël seen wërsëg ak seen doole di ko delloo waa parcelle. Mm-hmm. na ko waa parcelle xam xàmmee ko ràññee ko. xam ni lii fi nekk dafa war a changer. bu baax. ndax lu nekk daanaka vingt ans. ndax nekk nga conseil municipal deux fois ñaari mandat ñëw nekk maire treize ans. presque vingt ans am nga ko ci biir commune. Mhm. kon lépp war nga koo mën a jariñe waa parcelle. dañuy ñaan loolu xale yi xeex ji jigéen ñi xeex ci mag ñi xeex yi ñu jële fi lii jël xale yu ndaw yi génn parcelle ñu jàppale parcelle pour parcelle am ko 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86. léegi wax nga fi Moussa Sy bokk na ñaar yoon ci nekk na ñaari yoon conseil nekk na treize ans maire Moussa Sy am na bilan bu baax yéen sa gis-gis. bilan Moussa Sy xanaa toj lu nekk parcelle mu toj. parcelle amoon na rajo na lu fa defar itam. loo xam ne nangul ko ko li ma fa gisagum laay wax. Mm. parcelle amoon na rajo. Mm. léegi ci ci ci ci ay Moussa Sy lan lan la fa lan nga fa gis loo xam ne. defar nañ ko fa piscine piscine def ci. Euh, kii bi camp sapeur bi da laa gis te defe naa inauguré guñ ko sax. Mm-hmm. loolu de moom gis naa ko. ci mm-hmm. kii yem ah gisuma ko leneen de. man daal li ma fëgg gis. pavage yi doog ko nangul itam. pavage yi fu mu yem buntu mairie ak ba si église bi hôpital Ma Abdou beneen bi c'est l'état ndax ñun affaire lañ bokk di liggéey. Mm-hmm. unité 26 c'est l'état. léegi ñu jël mbokk moom ci ligne bi. salaamaaleykum. salaamaaleykum. ñu ngi lay siyaar si bu baax sëñ bi. waaw Rewmi TV ñu ngi leen di siyaare. Rewmi TV incha allahu rabi yaa ngi ci FM bi d' abord. FM. <laughs> waaw. maa ngi leen di ziare bu baree bëri. di la delloo ziar sëñ bi tu bi man la Mor Niass. Mor génération originale. Mor Niass Mor bisimilah. maa ngi ziare samay piste yooyu les lions. <laughs> waaw Mor <laughs> muy Ndeye Seck ak Awa Kane. waaw mhm. grand Mor nuyu nañu. <laughs> parce que ñooñu ce sont les lions des parcelles. Mhm. quoi qu'on puisse dire. Mhm. et ce sont. elles ont œuvré. elles ont rassuré elles ñoom seen wàllu bopp. dañoo def lenn lu nekk ak fépp euh, formation yu ñuy wax mm-hmm. am na lu bëri lu ñu fàtte mm-hmm. mais dañoo dimbali ay jigéen ñi jigéen mm-hmm. ñoom ñaari jigéen yooyu te xoolal euh, euh, femme unique c'est pas seulement unité sept c'est tout parcelle et environnement fépp la def femme unique parce que foo tuddee benn rek am nga fa fukk te ñun euh, ñun ñi nekk seen ginnaaw. Hmm. presque ñoom ñoom ñoo ñuy forcé. Hmm. wóor na yàlla. Hmm. ce sont les lions des parcelles. gis nga li ñuy wax ci euh, ne parcelle lañ nekk. mais depuis que génération origine juddu. Moussa dafa am sérieux problème. Mhm. parce que defatul mënatul sa xamatul. <laughs> Mhm. moo tax mu am sérieux problème. fu mhm. mu dégg génération originale nga fa. mu teg fa tànkam. dootu fa teg tànkam <laughs> mais nag ñun. ñu ngi dañuy gàcce ngaalaam à Mamadou Gueye original. Mm-hmm. Mm-hmm. et à ses hommes et à ses mm-hmm. <laughs> euh, li ñuy wax rek à tout moment. Gueye l'original from heart pass ah, <laughs> ni Gueye jërëjëf. <laughs> ok ñu koy sant di ko gërëm mbokk moom yi doon wootee ca diwaanu Parcelles Assainies mel ni soññ la ki ñaax. mais ba tey euh, maa ngi la doon wax bilan Moussa si yaa ngi ma ne piscine mais. nit itam buñ ko falee treize treize ans ci mhm. boppu mairie bi mhm. am na loo xam ne itam def na ko waaye du piscine rek xanaa man de li ma gis école moo fa nekkoon école municipale den ak mairie bi bu sa waajur néewee doole nga jàng fa sa élève jàng fa fay trente mille ci année bi bu ñëwee da ko toj ñu am fa rajo municipale mhm. ci ayam lañ ko tojee centre boobu ma la wax ci ayam lañ ko toje mhm. kon nag ñun mhm. boo yàqee école yàq rajo yàq centre ñu duñ mën a xam njariñ boo def parcelle mhm. ndax mbas mi ñuy wax ñuy rëy ba rëy ba léegi man de parcelle gisaguma ko ma woon ne juróomi dërëmu oma bi Moussa si moom ma ko jox gisuma ko man teguma si bët mbas mi li muy rëy rëy parcelle nit ñi di si sonn yaa ko wax léegi kaay ñu ko ah ñun yegg si wuñ ci kon ci ñun kon xëy na ñun dañoo dëkkul parcelle Unité 7 lañ dëkk mësuñu fa gis lu jóge mairie ñëw ci ñun amut te defe naa mbas mi warul xaar ñuy jëli moom moo war a indi lenn lañ fa gis lu mairie euh, séddale mooy li état bi joxe woon. ñu jël te loolu état ka joxe. ñu jël kooku salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. ñu lay ziar bu baax soxna si. ñu ngi delloo ziar. tur bi tur sant yàlla ñu leen di nuyu. tur bi. waaw di bëgg a participer ci émission bi. bisimilah bisimilah. waaw man la Ndeye Kallo. Mhm. dëkk unité mhm. du nuyu noonu samay compagnon de guerre yooyu. Mhm. waaw muy awakan. ak euh, Ndeye Seck. ñu ngi leen nuyu di leen ziar ci wér wér. unité ba xam waa GIE femme unique am na lu ñu fa def. <laughs> ah ma ne unité bi nga dëkk. waaw est-ce que GIE femme boobu am na lu ñu fa def ngir sukkali gox ba. waaw am na lu ñu fi def lu ba lu rëy a rëy loo xamante ne tey jii moo tax ma woote. Mhm. parce que comme ni ko sama frère boobu waxee rek dugg léegi géej kii Mor Niang. Mhm. waaw moom ñoo bokk fi ñu nekk fii. Mhm. la def fii lu rëy gay ñëw fii. installé ñu fi lu rëy a loo xam ne ne unité 13 ko am. ñun waa unité fii. waaw ñu koy sant di ko gërëm parce que moom dafa ñëw rek indi ñu fa gis nga am na lu ñu li nga leen doon laaj noonu ci miir bi. Mhm. ne lu tax ñun duñu ñu bind dem ci Moussa Sy man loolu mën naa la ko leeral mën naa la ko. waaw leeralal ñu ko. waaw <laughs> parce que ñun ñun bokkuñu benn parti. Mhm. ñun ñu ngi woon ci Moussa Sy ànd ak moom. Mhm. mais bañ demee saa yu ñu soxlaa bu ñu bindoo ñu faale. luñ fa du pour invité ko Moussa Sy faale wu day bedde man bis bu ma demee foofu bañ leen ne bind nañu ñoom ñi gis ñu mu ñu ko gën a jege ak ñu ko neex mu jël ñooñu bindul mu jël leen jox leen ñoom benn somme bi beneen somme bi ñu séddale ko partagé ko pour quatre personnes. Hmm. la ñëpp toog ñun waa Unité 13 daal ñun gisuñu suñu bopp ci Moussa Sy comme ni ñu ko waxee. Hmm. géy nag ko ñëw dindil ñu loolu. Hmm. xeex ngir développement ah jàppale ñu social. taxaw fii. ubbil ñu fi lu rëy loo xamante ne bëgg yóotu woon nañ ko fi te mënuñu koo am. Hmm. ñu dem ba femme yëpp booloo macha allah nekk benn di ànd di liggéey ba taxawal fi loo xamante ne mosuñu ko fi taxawal tànn suñuy jamra di def suñuy natt kalabaas te loolu yëpp duñ koy gërëmee lu dul l'original lañ koy gërëmee mhm. di ko ñaanal gudd fan ak wér ñun waa parcelle dañ ko soxla mhm. marché unité 17 da koo soxla marché mhm. Dior da koo soxla lu ma lu ma la mën a wax rek te gàttal rek mooy Parcelles Assainies instant bi géy l'original la ñu soxla te moo fi nekk moom la ñu gis ñun Moussa Sy gisuñu ko suñu parcelle sonal nañu saaga la ñu fi nekkee <laughs> xam euh, dóor lu ko neex mu teg ko nit ñi loolu la nekkee ñu ngi leen bëgguma wax nag ma gën a kii parce que comme nekk man dong nekkuma ci ligne bi maa ngi leen daal ci loolu di leen wax ne ne ne parcelle daal Gueye l'original moo fi nekk te moom la ñuy ñaanal balaa ngeen xam ne lépp dëgg la rek ngeen ñëw ba xam lan moo fi nekk mhm. waaw maa ngi leen bu baax a baax di jéggul ci woote bi nag kon kontaan alhamdulilah alors moo la déggee mooy euh, équipe bi mhm. yéen na ngeen jàpp ni dañ ko war a changer ban équipe. bi fi équipe bi fi nekk wala da ngeen bëgg dem wala da ngeen bëgg ñu changer ko. non il est temps dañu bëgguñu ñu changer ko changement la ñuy laaj parcelle te suñu changement yëpp mooy euh, Mamadou Gueye original. moo ci doy dindi nit ñëw teg fi nit ndax. Euh, jàpp ngeen non du dindi nit teg fi nit parce que euh, amaana suñu maire bi fi nekk. bu ñu lu ñu soxla bu ñu ko doon jox. Mhm. amaana duñ ko changé. Mhm. mais tamit nit mënul toog rek si donkaas gi di falu rek. wa merci beaucoup. Mhm. waaye itam buñ booy wax nit yi eh, na jóg lu ngeen indi jox ko waa parcelle. ñun ñun ñun ñun duñ indi programme bilan la ñuy teg. ñun bu ñuy ñëw bilan la ñuy teg te waa parcelle ñi may dégg xam nañ li may wax ñunu duñ ne moo duggee gis nañ yàlla te gisuñu ko parce que moo fi def lu jar ñu wax ko kon dañ koy wax. parce bu ñu ñëwee ci li ñu fi bëgg a indi ñaar ambulance tey bu ñu ko amee tey maam ab grâce à gi Mamadou Gueye original hmm. tey bu ñu amee ay chaise roulant ak ay lalu hôpitaux yu baax ci hôpitalu ab Abdou grâce à Mamadou Gueye original ak son frère Go fay hmm. tey ñooñu mën lañ leen applaudir biir parcelle. Hmm. ne seen taxawaay am na solo biir parcelle. tey bu ñu ñëwee ci formation développement des femmes. Mhm. grâce à Gueye original. Mhm. tey bu ñu ñëwee ci euh, consultation. Mhm. ñu jël kooku ci ligne bi. salaam salaamaaleykum. salaamaaleykum. Mm, soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziare man la Aada Kanji. dëkk Patte bi. bokk ci originalité. <laughs> originalité kon parce doxal nga nangu nga ñu soppi ko. <laughs> waaw bu baax sax. <laughs> Mhm. ndax ñun lii ñu gis ñun xamuñu ko. mooy lan lan ngeen gis. ah maa ngi nuyu tamit nday fekk moom toog ak awakan sama seex boobu. jàmbaar yi moo Gueye yooyu nga xam ne moo Gueye ñoom rek la am ci jigéen. Mhm. bu leen amoon ñoom dong rek doy na waxuma laa mu boole ci parcelle gépp mhm. xam leen ñun dañoo bëgg. pape sang bi. ñu ngi lay déglu. waaw dañoo bëgg pape sang mm-hmm. parce que ñun kii ñu nekkal moom xamuñu lii. <laughs> koo xam ne ay nitam rek lépp lu muy joxe ci ay nitam rek la ko yemale ñun xamuñu loolu ñun dañu. Mm-hmm. rëcc na ñu ngi koy jégal bu baax mm-hmm. kon yéen équipe bi dem daal ngeen di xaar. ngeen ñëw euh, mais tamit lépp balaa ngeen dem élection am na itam. waaw ñi ngi xaar élection yi ñun fu mu toll nii dañoo daas fanaanal de te tegguwuñu ci suñu tànk ñu ngi liggéey guddeeg bëccëg chaque jours que jëfee ñu ngi ci parcelle di xool yàqu-yàqu yi ak yi ñu ci war a defar ak li askan wi soxla mhm. parce que tamit balaa ngay dimbale nit nga xam li mu soxla mhm. te loolu waa génération originale ñu ngi ci guddeeg bëccëg. tey lan la parcelle soxla. parcelle li mu soxla bëri na. Mhm. parcelle euh, inondation yi rek bëgg nañ ngir yàlla bu bu nawet bi jotatee. Hmm. ñu nekk à l'aise biir Parcelles Assainies assainissement gis nga dëkk boo koy defar da ngay njëkki assainissement ba pare hmm. parce que hmm. assainissement moo yor lépp buñ ko defaree après yeneen yi fur et à mesure yeneen yi ñëw macha allah te loolu euh, ñu ngi ko soxla ci jeunes yi nga xamante ne dañu nekk biir parcelle di œuvrer di liggéey jël seen alal di ko def ci biir parcelle pour parcelle avancé wax dëgg yàlla léegi nag dañuy def lu gaaw cinq minutes <laughs> Euh, femme unique mhm. ndaxam yéen euh, ci élection yi euh, da ngeen nanga nam ànd ak benn candidat bi nga xam ni di ngeen ko jàppale bu baax ci élection yi nga xam ni nag yéen a ngi jëm da ngeen am taxawaay bi nga xam ne bu ngeen ko jàppale nit. kan la war a doon femme unique moom taxaw na bu yàgg pour jàppale Mamadou Gueye ñu fal ko ci mairie Parcelles. mais est-ce que Mamadou Gueye taxaw na wax ni moom candidat la. yàgg na ñun daas fa naa ñun kay fi mu ne prix la ñuy xaar pare na Mhm. ñun jàkkaarloo rek la ñuy xaar date de. waaw loolu de ñun ñu nii di pare bu dee suba rax ñu bëre sëg bëre sëggul bëre moom foog ñu bëre jàkkaarloo gars yi. Mhm. mais Moussa Mba Parcelles Assainies itam euh, dañuy dangeen ngeen yéen a ngi tudd rek Mamadou Gueye. Mhm. du amul Mamadou Gueye kese. am na Go Faye mi fa. am na ki nga xam ni moom moo di Moustapha Kane itam leader la fa. bëri nañ. est-ce que itam tey ñoom bu nu bëggee dara. Mm-hmm. Euh, est-ce que du waruñu boole seeni doole itam dem parce que Moussa Sy bu nu naree dem est que du du mujjee leen itam. xoolal parcelle xale jeunes yi fa nekk comme ni ko a waxee di ci def seen doole. Mm-hmm. dañu war a booloo. ñu jël kooku. Mm. salaamaaleykum. salaamaaleykum man moo rafet maa dellu si waat. <laughs> waaw waaw si si si tënk rek. tënk. Mm-hmm. <laughs> rëcc na ñu bàyyi la nga continuer parcelle mhm. jeunes yi fa nekk mhm. comme ni ko Awa waxee di ci def seen doole ak seen wërsëg mhm. ñun dañ leen di encouragé bu baax ndax mun li ñu am munoon nañ ko téye seen njaboot waaye defuñu ko Modou Gueye ni mu fa nekkee di def am na jeunes yu fa nekk comme suñu frère Go Faye mënu gën a jege dañ koy tudd ñoom Moussa Fakan ñëpp joora man li ñu bëggoon ñun tey ñu boole seen doole loolu ngay xaar nekk benn mën na nekk loolu la ñuy xaar te ñun sax li ñu bëgg sax maire bi fi nekk yaakaar na duñ ko may sax mu dem di campagne ci élection yi bu defee candidat du fa campagne ndax duñ ko ko may. Mhm. lan moo tax maire ba du fa campagne te itam xanaa nekkuñu itam démocratie itam mu am bëgg a yóotu parce que Moussa si itam am na projet yoo xam ne bëgg na ko defar parcelle itam. waaw mais projet yi est-ce que trop tard. Mhm. parce que 12 ans ba yóotu 13 ans ku ko def benn place wax dëgg yàlla boo ne am na projet yoo ne yu nekk sa kanam ñun dinañu jaaxal. Mhm. waaw moo tax nag il est temps wax dëgg yàlla euh, comme ni ko Ndeye Seck waxee am na ay jeunes yoo xam ne ñu ngi parcelle di def seen doole ñu ngi leen di woo ku mel ne Bokar Jong mm-hmm. Moustapha kan mm-hmm. ah Go Faye euh, Mamadou Gueye original ñooñu ñëpp ñi ngi parcelle di liggéey biir parcelle mm-hmm. di jël seen ñaq seen doole di ko def te parcelle te xaar xaaruñu ci dara lu du changement parcelle ñooñu mën nañ boole seen doole déjati Moussa si loolu nga ah, si sa yaakaar loolu laa bëgg man awa ñun buñ ko deful sax ñun ñu ngi ànd ak génération originale ci liggéey bi mhm. pour élection locale yi di ñëw mhm. incha allah mu abal ñu signature bi mhm. ñu mën a eggale si nu bébé bi passé la si incha allah ndax dina yomb waaw yàlla noppi na yàlla noppi na bu yàgg ñun daal de toute façon ñu ngi ci liggéey bi mhm. di profité waale nag di nuyu waa génération mhm. originale yëpp mhm. ndax feccum liir bu neexee nday jaajàpp ci mag mag yi te wax dëgg yàlla waa génération originale ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen kontaanee di kontaan ci yaa nafi yaa naadi ah di leen dinañ ci ñëw léegi yéen est-ce que commencé ngeen euh, déjà rek natt ngeen seen bopp ci ci ci commune bi. <laughs> bu baax a baax a baax ñëw bari doole macha allah parce que génération originale du ñun kese la. tool la. àdduna la tey bu ñu fi doon woote tey macha allah parce que Mamadou Gueye ñëpp ko gëm parce que social. Hmm. xam nga li may war wax politique autrement la ñuy def. barki démb maa ngi doon lim sànq pareegu ma barki démb septembre lañ xarafal. 1751 xale. Mhm. te kenn nekkul ci ginnaawam. propre moyen la ñun xam nañ ci dara parce que ñun ñoo yoroon lépp. Mhm. Mhm. te dalay jox nga lekk jox la nga naan macha allah teg unité yoo xam ne dañuy ñawal say doom yëre nju lu ñu xarafa la jox la kit nga dem. mi ngi ci social. bu baax a baax a baax. ok léegi euh, ñu ñëw ci yow. Mhm. Euh, kàddu gu mujj gi. Mhm. léegi euh, femme unique. Mhm. yaa ngi ma ko doon wax sànq leen yow nga ne am na candidat te dina dem ci élection yi ak candidat boobu. kumu candidat boobu rek mooy duggee Gueye l'original. Mhm. mooy suñu candidat nag ndax femme unique fu ñu toll moom la. te moo ko bëgg a tas tamit parcelle ba ñëpp jàppale leen mooy mhm. profité wàll di gërëm waa femme unique yëpp mhm. ak membre yi fi nekk yëpp mhm. sama secrétaire muy Seynabou Ndiaye Ndeye Fatou Lo sama trésorier Ndeye Abi mbay président organisation euh, <laughs> non non bi rek laay tudd Adama Kagne ak waa femme unique yëpp ak euh, ni ko aw waxee rek ñuy nuyu bu baax suñu mag yi nekk ak ñun génération originale mooy yaa na fi ñoom Mor Niass suñu grand yi saaxoo ñoom ñëpp Ah, ñun dañu pare. ok parcelle moom nañ ko ba pare. <laughs> ñu ñu bàyyi la nga tàggatoo ci. <laughs> waaw macha allah ñu ngi am contentement wax dëgg yàlla tey ñëw fi Rewmi FM di leen jaajëfal. Euh, am mbégte wax dëgg yàlla macha allah ci mm. invitation bi. du nuyu waa génération originale yëpp. Mm-hmm. bàyyi ma kenn toute la famille génération originale parce que c'est une famille. Mm-hmm. Euh, nday kalo mi fi woote léegi grand moñas di mm-hmm. nuyu nag sama yaay bu baax di ko ñaanal jàmm ak sama papa la famille kan. de di nuyu nag. ah particulièrement grand Sakho mm. maa ngi koy ziar Diaz mm-hmm. mm-hmm. ah faatu Fatou madame mm-hmm. Guèye ah, Sow ñëpp aada kanji fi woote léegi macha allah cat ba cat merci ah di ñaanal nag moom Mamadou Guèye yàlla taxawaayam yokk yàlla yokk mën gi yàlla yokk wér gi ndax macha allah taxawaayam am na solo ci parcelle ndax moom moo mën a fomp ci suñuy rongoon nga wax jaay yaa na fi ziar am na solo ñu leen sant mbokk yi di leen gërëm bu baax si émission bi di gërëm bu baax ki nga xam ne moom moo di Ndeye Seck présidente euh, GIE Femme Unique. Mm-hmm. Mm-hmm. di gërëm itam Awa Kane moom mooy euh, njiital ndaw. Mm-hmm. génération originale mbokk yi kon di gërëm sama technicien bu ñaaw bi. mooy Baba Aïdara <laughs> jox leen dig daje kon ba beneen dimanche. ak beneen invité fii ci émission gox bi